asalaamaaleykum mbokk yi teel a dibéer ñaari fan ci weeru diggi tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak ñett ci weeru juin ci atum ñaari junni ak ñitt ak benn ñaari fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la manis na cee wattu wala daloo ci wala takk ci ab sëy wala yeggale ko ca wala sanc ci kër wala tàmbali ca dara ak yu mel ne ñoom bu dee bisub dibéer bi li ñu ciy tere tere ak wattandiku mooy ko ca watu ko ca tàggoo ñaanuk bis bi yow yàlla mi aji dund ji te aji des ji maa ngi sàkku xetal ci sa yërmande yaa xayu yaa ma bi rahmatika astaxiisu xadiisu bis bi jëlee nañ ci abi barsata assalami yàlla na ko yàlla gërëm mu ne laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonent bi yàlla bi tegtal ma jëf ju ma mën a jariñoo yonent bi ne ko deel sori lor ci yoon wi jullit ñi di jaar xadis bi ibnu maaja moo ko nettali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 jant bi dana fenk juróom benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak benn di so fukki waxtu ak juróom-ñeent wu tegal fanweeri simili ak ñett yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin